Sénégal neex na léegi quoi Sénégal <clears throat> neex na léegi donc da gis Abdou Mbow démb ni mu doon waxee bu doon jamonoy Macky Sall la ñoom bu doon seen jamono la ñoom Sénégal yi foo ñuy delloo suñu xel bañ di gaaw a fàtte Abdou Mbow conférence de doon def démb ni mu doon waxee ak wax yi mu wax bu doon jamonoy Macky Sall la seen siège boobu barricade nañ fa duñ fa dugg seen siège boobu duñ fa dugg wala bu ñu waxee ba pare pour suuf jël ko moom yóbbu parce que li mu doon wax jëmale ko ci njiitu réew mi ku ko waxoon jëmale ko Macky Sall kaso ngay fanaani dem wax na lu ko neex ci te moom ci boppam ay kàcc kese di ngeen ci xam dara léegi léegi nii ay benn benn vidéo seetaan leen ko ba ci fin bi mais bu doon jamonoy Macky la conférence de presse boobu du am ndax gis nañ ni waa Pastef daawuñu def conférence de presse waa Yewwi daawuñu def conférence de presse finalement bu ñu bëggee dem siège yu Déthié Fall def conférence de presse sax dañ koy barricade duñ fa dugg bu ñu fàtte yooyu fii fekk te ñoom ñoo jiite réew mi ñoom ñu di wax ni tey mel ni ay nit ñu set lañu nit ñu xam nguur lañu nit ñu xam ni nguur di doxee lañu ñoom ñoo doon def yooyu ci biir Sénégal te loolu matul ay 6 mois 7 la Déthié Fall ak ñëpp Khalifa Sall ñëpp dañ daan dem defi conférence de presse siège Déthié Fall ñun leen du ngeen fi dugg ñoom ñu toog tey di jéem wax comme si ñoom ñoo ñoo xam nguur ay homme d'état te fekk réew mi fu mu nekk tey fu mu yàqu tey ñoom ñoo ko fa yóbbu démb dégg naa ko mu naan lu jëm ci fond politique kenn benn président mos cee wax jamonoy Ablaye Wade jamonoy Abdou Diouf jamonoy Sénégal bu baax ñi ñoo ñëw pour wax ci ñii dañuy leeral dañuy setal parce que loolu sénégalais ñoo ko moom pour sénégalais yi la. tappale yi ngeen nekkoon di jël alal réew mi di nëbbatu jaay affaire ay affaire homme d'état ay affaire secret d'état yooyu ay caaxaan la. yooyu ay caaxaan la ñii lu leer lañ bëgg te président Diomaye bi mu ñëwee fekku fa dara ci fond politique te gis dégg naa job kii Bougane muy jaawale fond politique caisse noire bi mu koy jaawale ak budget présidence moom moom ay waxam dama koy teg na le xàmmewul fonds politique caisse noire ak budget présidence loolu lay jaxase mais président Diomaye nee na fekku fa dara te fekk fa dara. ma xamal gars yi nag foo politique yooyu lu muy jariñ li ci ëpp lu muy jariñ pour dimbali ay nit lañu ak yenn yenn yenn mission yoo xamante ni yenn mbir yoo xamante ni alal jooju ci lañ koy def ay urgence pour ay urgence la dégg nañ euh, ñuy wax comme si comme si président Diomaye wala président Ousmane Sonko dañoo wax ni loolu bu ñu ñëwee dañ koy supprimer dañ koy dindi dootu fi amati maanaam dafa xaraam da leen déglu président Ousmane Sonko ba waxam jeex xam nga président Ousmane Sonko li ma def ay ree mooy ñi ko daawul déglu ñi ay waxam mos leen a ñom ñokoy président de la boko il ay intéressé wu la la parce que boko ko jéemee ñu génn la ay wax yi dëgg da la duggal limu wax dëgg-dëgg-dëgg ci caisse noire té jamono avant 2019 lim ci wax ci ni ngeen ko ngeen gis ko président wax xam nga ki néna ki ni sax kiriku président wax ni fekk décret pour président Diomaye waxul loolu te li mu wax dinaa ko dugal. sa kàcc yi sa fenn yow Abdou Mbow dinaa ko dugal dugal li président Diomaye wax pour sénégalais xam yan genre nit ngeen tappale ngeen nekkee dafay jeex nañ seetaan. déggoon ko mu ne bi mu ñëwee pour vous montrer que comme ni ma leen wax soo soo koy Diomaye Diomaye soo mu ne fekk na prédécesseur maanaam le président Macky Sall signé décret le 22 pour yokk ndox xamul ne sax ndox mi arrêté interministériel. nit man na bay lu ne ba mu dess Nous ñu ñew le 29 mars ma fekk sama prédécesseur ki ma fi bay ki ma fi wutu ñu mu andal signer arrêté pour yok ndox mi le 29 mars alice motax ci livre dama ne fonds politique dañ koy remplacer ak fonds secret ñaar yooyu bokkul fonds secret mooy am réew dafa am ay dépenses yoo xam ne c'est des dépenses sensibles kenn mënu koo bind ci budget boo xam ne da koy def ci site ministère de l'intérieur ministère des finances du moins fonds d'espionnage mënoo ko bind mënoo ne Sénégal day espionner réew sangam 500 millions lañ fa prévoir yooyu dafa laaj ñu def ko des fonds secrets mais fonds secrets yooyu d'abord dañ koy voter à l'Assemblée buñu paré c'est des fonds yo xamné contrôlés. dañ koy contrôler ils prêtent serment ñoy vérifient dem vérifier la régularité des dépenses qui ont été faites sur ces fonds politiques mais dans une démocratie dans une démocratie mënul am ben dërëmu citoyen bi bo xamné dañ koy jox kenn mu koy foy num devons ko nexé lolou du yoon gars yi dans C'est dans vidéo ba mu Nous ngeen gis gars fiñ fi ci distribution engrais bi ci distribution jiw bi ci yoon wiñ ko ak baykat yi naka lañ ko gisee ngeen xool ba vidéo ba ci fin bi dégg naa démb Thierno bokkum c'est normal nag ah Thierno mi ngi wu Bougane bien que Bougane moom buñ toppoon ay waxam benn par benn ay rey sax da leen di jàpp quoi benn par benn ngeen gis ni mu jaxasoowee Thierno Bocoum même chose mi ngi naan eh, état bi nee nañ wàññi nañ engrais la moo tax état bi waxuñu ni engrais fu ñu koy jëlee dañ ko xamul sax ni Sénégal li ëpp bi nga xam ni moom la nguur gi di joxe Sénégal lañ koy produire Sénégal lañ koy defaree. ICS bi ngeen di gis engrais lay defar indien yi jël ko yàpp yabee ko Sénégal diri ko yóbbu ko ba Inde engrais ci seenu mbay ba seen mbay dox seen ceeb seen lépp pare ñu jëlaat ceeb boobu indiwaat ko di ñu ko jaay ñun Sénégal day produir engrais bu doy sëkk moom mu naan nguur gi lan moo tax waxuñu ni mu ni Diomaye nee na engrais bi wàññi nañ ko ren te day gën a wàññeeku parce que système biñ teg la ba tax muy wàññeeku mais mu xamul sax ni Sénégal ci bopom dañ fay produire engrais bu doy seuk état bi def ci moyens yu wér ren mbay mi état bi def ci 120 milliards té ngour Macky Sall daw ñu ni 100 milliards lañ ci nak état bi def ci 120 milliards ci temps bu gàtt ah, bi jëlé ngour gi ak bi commencé campagne même pas un mois mais organisé nañ ak ministre bu xarañ ñu taxaw tek ci tek teg affaire ci axe du ñak ay quoi parce que moment bi jëlé ngour gi légui 3 mois ñu song ci campagne arachidière bi song ci lu jëm ci assainissement pour pour nawet ak ak école école préparer examen école lu quelques mois donc ñu leen di ngeen vidéo ba fin pour ngeen gis li xew ci campagne arachidière bi ci joxe jiw bi ak ci joxe engrais bi muy concret lo xam lamb la du ay comme ñom parce que guerre de positionnement lañ une surtout guerre de positionnement la nek député Musa nek ci musuma xam lu député té boobaak ak mënut a nek député té daf ci mere Ousmane Sonko ci élection législative yi yi passé biñ créé sen aar Sénégal am ñom ñu amon ci yakar japp na ñom ñoy jeune yi ñom ñoy borom xam-xam nek nekk di sobal ben député lañ am. té mom ci député rek la mësa nek nekk ci laayfam ci ci la yakar élection législative yi di ñëw motax c'est normal aussi ni muy génne ni jëmo def bon jëmo sonko sonkolu donc yalla nako yalla jappalé garde positionnement lañ nek mais nañ ko def ak xam-xam parce que gaay yi amuñ sen jot mais fuñu déraper ñun dinañ fi wax wax wax ak ñom donc seetaan nañ vidéo jeex. engrais bi doy na yomb na ñu nii di ko jëli boy ñi wallaahi mi ngi nii kenn du leen ko wax mu ngi nii mu ngi nii xaalis bu ndaw engrais bu bari moo nekk nii yàlla xam na ko. weddi gis da caa bokkul. jërëjëfe Diomaye jërëjëfe Sonko jërëjëfe Diomaye jërëjëfe Sonko jëfe Diomaye jërëjëfe Sonko. jara jefe jomai, jara jefe sonko Nabi Vision di nga ngi ni gerte ga ngi ni de képp ku sax xel sax xel nekkan ci ini, pour bëgg a jël gerte kardan momut tay nga ma ngi ni mi ni lay carte d'identité amo Euh, kii euh, amoo amoo carte d'identité dëggantaan mënutoo am euh, aw jiw léegi yëf yi tegu na ci yoon ñu ngi sant Diomaye di sant Sonko réew mi nii mu koy doxale ñëpp ci ñëpp ñëpp bég nañ léegi moom ay caaxaan jeex na fom yi jeex na trian yi jeex na tappale yi jeex na léegi carré rek ba pare yor carte d'identité door a jël sa sa sa sa jiw ñu ñëpp tegu nañ ci yoon léegi réew mi nii lañ koy soxla woon ñu ngi commencé gis yoon dingiraa ngi nii de gerte gaa ngi nii de képp ku sa xel sax xel nekkan ci jubadi pour bëgg a jël gerte goom moomut tey nga de réew maa ngi nii réew mi nii lay doxee léegi boomul carte d'identité amoo euh, kii euh, amoo amoo carte d'identité dëggantaan mënatoo am euh, aw jiw léegi yëf yi tegu na ci yoon ngi sant Diomaye di sant Sonko réew mi nii mu koy doxale ñëpp a ci ñëpp ñëpp bég nañ léegi moom caaxaan jeex na fomm yi jeex na trian yi jeex na tappale yi jeex na léegi carré rek ba par yor carte d'identité door jël sa sa sa sa ñi ñu ñëpp tegu nañ ci yoon léegi réew mi ni lañ koy soxla woon ñu ngi commencé gis yoon. Abdou mbaw yo xam nga yow li lay défendre ñu xam nañ député bobu nga doon motax ngay jëma bani bani lañu lañu lañu président jomay décédure euh assemblée bi en attendant yo ba nga libre quoi ba nga libre ñu mëna a yo nabi Vision fekk rek amul fit te wax yi ngay waxoon fi yëpp nga waxaat ko boobaa te yow sax amoo yow sa waxoo dara parce que yow say wax da ngaa yeewu nag noonu nga gàttee ndaw noonu noonu nga yeewoo te waxoo dara lay dugal de tey maa ngi ko jox respect tey may li mu wax fii du dëgg ak ay yooyu noonu yooyu yooyu yooyu dugalu la quoi yow bëggagoo dugg ba léegi yaa ngi ci bunt bi da ngaa yeewu nag waaw ni nga ndawee noonu moo tax nga yeewu mais dañ lay xaar sa réew ak président Jom président. sa président boobu noonu sa waa jooju mu traité sax man gaaw na koo fàttali ku manqué ki mooy Macky Waaw fii la nekkoon di def lu ko neex nga toog fi nga toog di ko encouragé ku dégg bëccëg ngoon booy di dee nga koy encouragé booy di jaayante nga koy encouragé taxaw fi yow bu dëgg nga fi a wax mu waaw wax benn dëgg Sénégal mënoo wax benn dëgg parce que seen président yéen a ko jaay ba yóbbee ko ni ngeen koy yóbbee noonu wallaay bu ñëwee salaam sama gars yi siyaar naa leen bëgg naa leen ah waaw dama doon déglu léegi conférence de presse wu Abdoul Mbow bi Abdoul Mbow yow nee nga nee nga doon xaar hmm, trois mois yi jot ngeen doog génn quoi te yow léegi nee nga yéen da ngeen di da ngeen doon xaar léegi xaaratoo leen léegi da ngeen di wàcc ci terrain bi loolu ngeen wax maanaam da ngeen da nga bëgg nga leeral loolu beneen bi nee nga da doon xaar jomaay ak Sonko bi ñu doon wax. ndax deug la mais tay nga ko gëm sa parce que parce que yeen seen bop yeen ñi doon and gëmonté woon gëmo leen woon nit deggo nañ nonu loolu mo leen jaaxal ñun xamone nañ di ngeen génn parce que dañ leen a gëmloo woon ni leen Adama fay bop mo leen doon gëmloo ni leen Sonko ak jamaay dañu am problème ngeen gëm lolu yaakaaron ne bu jamaay gënne day def genre QA pour publicité wax ni affaire yeen noonu beneen bi yaay wax ci pétrole bi nga naan ay Macky Sall Nabi Vision yeen pétrole bi mu woon gënne ci yeen parce que baaxoo leen yalla mo dimbali mo ñu dimbali ñun jox ñu président Diomaye yaa ngi wax ay doom ñuy ngénte seen doom yi ñun ngénte wuñ ko de parce que seen BRT bi quatre cent cinquante milliards ngeen ko lebee diggante Géejawaay ak dakaar ban njëriñ lañu ñu amal gisoo ko ni mu taawee mais fi lañ ko fekk mënuñu si dara duñ ko dajji di sànni parce que yàq ngeen ba pare lu bon nag dëkkul fa mu jëm fa mu jóge la cosaanoo yéen wàcc leen ci terrain bi ñun ñu ngi leen di xaar ñu ne ngeen da ngeen di wàcc terrain bi yéen bu ngeen wàccee ci terrain bi du yéen ak homme de tenue yi homme boobaa dañu leen di wax yéen xoolal toog leen ne ñu réglé leen problème bi situation ba pare jàpp gars yi di leen di ko indil homme de tenue yi lu ngeen musul gis ngeen di gis su boobaa homme de tenue leen di sant ñun dañuy leen di xëcc di Mbow suñu bu ngeen wàccee si terrain bi di ngeen xam ne booy bàyyi wuñu ñu gis nga li ñu meroon denc ko yéen yéen a koy génnee lu garaaw laa lay tegal nii Abdou Mbow ngir yàlla rek li nga wax na ngeen ko def génn leen yow yaa ñu xamul mais Macky Sall xam na kan mooy booyu Sonko yi xam nañ njéeréer yi Abdoul Mbow ñun ñu ngi lay xaar. gars yi nag tey ngeen dee dof yaa ngi ñëw dal seen kaw te dof yi barrière la ñu wàcce yow dof yëpp génn nañu euh, ndànk rek ndànk rek yéen waa quartier dof yi bës bi moom yéen a ko téye yéen bës bi ngeen yor kenn bëgg koo xëccoog yéen bës yi dof hmm? ay waxi naxa saxandang génn yéen yéen bës dong daa jar dof ya nekkoon ci quartier dof yi yëpp ngeen génne leen ñu ñëw di di jaddi suñu kaw lima gëna metti nak dof bu ndaw bi hmm, mii mhm. kiriku euh, sarax ñu ngir yalla soy wax bayil di najok di Naby Vision waa kay yow mato nit yow ñun suñu fallu mi rek lañ lay bolé borom joy yi yaa ngi mooma te yow magé nga ko 70 ans yow ku la gis ak sa os yi xamni magum jëm nga xolo benen dof bi mom nga xamanteni no ay way ndaw samba ngeen bëgg jël suñu dëkk bi def ko dëkku dof loolu ngeen te dinañ leen ci bàyyi kenn du ko xëccoog yéen de ñun dof yi ñu xam mooy dof yi nga xamante ni par yenn saay ñu wër par yenn saay ñu feebar mhm. te ñooñu yàllaa leen def euh, euh, euh, ñu wéri di wante ay dof yoo nga xamante ni maanaam bopp bu amul dara moo leen defi dof jàng leen ngeen bañ moo leen defi dof dëkk ci ay nar moo leen defi dof ah gis dëgg ne lii du dëgg yéen lii ngeen bëgg jël def ko dof dof yooyu nag moom ñu ci ñoom dara ñooñu suñu leen bëggee wérloo sax duñu wér ndax naa fekk leen tax dof waa kay eh, yow nag Abdou Mbaw yow kiriku nga ne yow ngeen ngeen ne loo leen di def noonu motion de censure yoo xam ne patati patata ak loi boo nga xamante ne day tax maanaam président daal du mën a tas assemblée bi eh, loi boobu soo leen ko defee ba pare eh, ka ah waaye waa loolu du delluwaat ci président hmm? ay waay ndaw Samba dof nak fi la terminé rek dof mom fi la terminé euh, nan len lu sedd affaire bi dina metti dina yag ñun pareeguñu de te yeen da ngeen do commencé affaire bi da ngeen ko jëlé deun ñun fu mu toll ni ci anniversaire lañ toll di souhaité sunu sunu président Seydina Ousmane Sonko mi nga xamanteni ni ngeen baña gis te sa yo len yeewoo seen xol yi di gëna ñul di gëna tang di gëna metti yeen gom bi ngeen am betadine munu ci dara alcool ak yoy yëpp munu ci dara góoru robu walé ngén am ku moy tul ci ngén di deewee ndax ñun dañ fé nara yag dé dox leen fayu ñàkkatu jom yi mag yi ngeen doon ceem patriote yi maa leen di bëgg baax te nabi vision gaay buñu naxanté naxante patriote yi bu ñu naxante am du yoon barké alcorane karim wa APR yi nek fi di def ay conférence de presse yu jeex réew mi bu fekkente ne dañ ko bëgg tek ci yoon barke alxuraan yi nañu destituer assemblée nationale bi tëggaati élection loolu mooy dëgg mu ñu censé président de la république même pas trois mois ñi fi nekkoon nga xamante ne ñoom ñoo ñooy majorité assemblée lépp lu président bi wax ci lu baax kenn ku nekk génn Abdoul Mbow jiitu ko boppam bu rëy bii gis nga respecté leen sénégalais te dund patriotisme encore une fois président de la république barke alxuraanu karim bu fekkente ne bëgg ngeen a liggéey réew mi destituer leen assemblée nationale bi gis nga bis bu ngeen ko décédéwul barke alxuraanu karim waa APR am nañ fitu bloqué assemblée bi kooku moom na leer bloqué réew mi la ñuy def dara du dugg dara du génn yéen a may dégg bu baax te gis nga eh, mën nañ infiltrer booy yi nekk ci marché yi ñu génn taal réew mi ñoom ñu génnaat dem ci télé yi di wax naan gis nga ñii mënuñu mënuñu mënuñu gis nga bu ñu naxante destitué leen assemblée nationale bi barke alxuraanu karim bu ngeen ko deful da ngeen am nekkoon ci réew mu normal waratuñoo nekk Sénégal di wax ñu yàq ndey réew ba pare bëgg a nekkaat fi di takk ay rajo duñu fontoo loolu mënut a nekk loolu mënul nekk jël Sénégal douze ans yi Sénégal ñu yàq ko lu yàq te alal ji ba mun a pasar ñu ñu ñu leen même pas trois mois ñu nekkaat di di di wër ci télé yi xanaa ñi respecté wu ñu Sénégalais yi xoolal président de la république yow sam ak sa membre gouvernement gis nga. naaf yi de l'Assemblée nationale bi. gars bu ñu naxante de dëgg dëgg suñu borom la de. lu leer laa leen wax. dama yow da ngay wax quoi da ngay wax ci li gaay yi war a def benn waaye génn fee naan gaay yi da ngeen a da ngeen a bëgg affaire gaawantu am réew du noonu gis nga ñun ñëpp dañoo bëgg réew mi di dund patriotisme amul amul affaire gaaw am na loo xamante ne amul xaare am na loo xam ne ci réew mi amul xaare muy jël waa bennoo bokk yaakaar yi dóor leen ci kaso bi dissoudre assemblée nationale bi Sénégal nekk ci jàmm lii amul luñ ci war xaar amul ci amul dara joxo leen ordre ñu tas assemblée nationale bi waa APR yi ngeen gaawal ngeen gaawal audit yi dóor leen ci kaso bi léegi lan mooy problème bi da ngay taxaw fee wax sa soxla wa doyal benn gars génn fenaan naan affaire dafa yéex am réew doxut noonu ma ne réew mi amul lu ñu fiy yéexal am réew bu ko am ñoo xam ne dañ ko yooyu yàq ko ña ko yàq amul lu war a yeex ci ñoom dañoo war a gaaw lijjanti leen ku lekk xaalis bi nga génn ñu dóor la ci kaso bi Sénégal continuer di nekk ci jàmm lii mooy dëgg te képp ku leen bëgg wala mu yéene leen jàmm lii la leen di wax képp ku bokk ci projet bi te xeex bi ngay xeex dëggu ci yow waxal lii parce que loolu mooy dëgg xam nga ne bu fekkoon ne réew mi seen bii gars yi teg nañ fi ñu war a teg normal barke alxuraan du demee nii mais waa benn bokk yaakaar mën nañoo yàq réew mi ba mu ne tasar même pas trois mois ñu génnaat bëgg ñoo sonal bëgg la sonal ak sénégalais yi di infiltrer booy ñuy def di n'importe quoi barki alxuraanu karim bu ngeen bëggee gaaw liggéey bi gaaw lii ma leen wax moom ngeen di def bu ñu kenn sonal ci affaire yi dafa gaaw dafa ne ay ay bàyyi leen gaaw fi amul luy gaaw trois mois mën nañoo dissoudre assemblée nationale bi loolu mooy dëgg